voilà yegg si nañu si comme nu mu leen ko waxee woon sonk Mbaye Babacar tey Birima Ngoné Latyr moom lay waxtaanee Mbaye Babacar. Euh, jërëjëf Khady Colonel euh, jërëjëf euh, mbokki téléspectateurs yi tey ñu ñëwaat rek ci kenn ci sunu maam yooyu nga xam ne boo seetloo dundam ak jikkoom ak ay meloom mm, lépp rafet na nam rafet ñoo di ay baayam ak ay maamam euh, Birima Ngoone Latir euh, doon koo xam ne Ngoone Latir ab saako jur moom Lat Joor Ngoone Latir ñoo bokk jenn ndey Ngoone Latir ab sa di seen yaay Ngoone Latir sa damel may sa tendu joor moo ko jur ma ca sawara su bari sa noonu lañ ko daan dàkkantale damel may sa tendu joor teeñ lat dëggeen faalee ko jur teeñ la déggan fali damel may sa déggan koddoo ko jur damel may sa déggan koddu jàmbur ma dàqaloon bàyyam buur taraasa ko jur mu di wàllu ndeyam euh, Birima Ngoone Latir ma koddu yànne mbëru koor faa la ko jur ma koddu mii bàyyam damel teeñ Birima Fatma cubb moo ko jur Birima Fatma cubb bu nguraan maa ko jur bu mbir teñ ma ko du kumba jaari ña ko jur euh, noonu la juddoo juddu ci néegub géej di jàmbaar di garmi boo xamante ni euh, turam siiw na ci senegal ak ci àddina bi yëpp ci njàmbaaram dootut fay Birima Ngoone Latir bi nga xamee ne euh, Birima Fatma Cubb saay na maamam may sa tendu joor moo falu nekk kajoor di teeñ ci kajoor di di di damel ci kajoor bi nga xamee ne nekk na damel doomi garmi yu bari ñëw uuf ci wetam ndax euh, may sa tend dafa nekkoon buur bu baax nekk buur bu yaatu nekk buur bu jaboote woon ñëpp euh, doomi garmi yu bari yaru ci keppaaram ñu mel ni euh, Maysa Mbay Joor ñoom Demba Joor ñoom Sangoone Joor ak ñooñ maa jooju diggan koddu euh, ba ci biir ma ngoone latir mi ñuy waxtaane ñoom ñëpp yaru ci keppaaram nekkoon ci moom jamono di dox di dox ba benn bis euh, xale yooyu di ay xale garmi ñoom ñëpp nekk ci pinc ma di fo ki nga xamante ni mooy kenn la ci ay maamam muy Amari Mbéri Taal am bis mu jóge njukki takk ànd ak ay garmi yu bari ñu ñëw ngi gis bëgg a seet ci ki nga xamante ni moom mooy damel may sa tend joor bi ñu ñëwee ñu ngi fekk xale yi ci mbedd bi ñuy fo bi nga xamante ni Amary Mbéry Tall daldi daal nuyu kenn ne ko tudd mu ne ko man maa ngi tudd Demba War Joor laa tudd mu ne ko ah yow de doom war nga fee nekk joxaat keneen loxo ne noo tudd mu ne ko man Sangoone Joor laa tudd joxaat keneen loxo ne noo tudd mu ne ko man maa jooju déggan ko du laa tudd joxaat keneen loxo di leen nuyu di def noonu di nuyu di leen nuyu xale yi ba egsi ci biir ma ngoon laatiir ne ko yow noo tudd mu ne ko man xaw ma sama tur mu ne ko ah xamoo saw tur mu ne ko déedéet mu ne ko eh, nit ñi lay bañ xamee aw turam mu ne ko aw ndax dañ may woowee jàmboor di ma woowee jogamaay di ma woowee barget di ma woowee béjjén di ma woowee jàmboor tur yu bari yooyu nag daje ci man moo tax xaw ma wan laa ci tudd moo tax xaw ma sama tur mu ne ko waay waaye doom man yow laa yow day xam naa ne boo deewut di nga falu eh, waaye dama bëggoon a gis sa maam may sa tent joor waaye dama la ci yónni comme sët mën na ci maamam dara dama laa bëgg a yónni ci sa maam soo demee nga ne ko sama maam Amari Berital dalaa laa bëgg gis bu fekkente nii mënuma koo gis euh, nga waxal ma ko sama yóbbante nee ko sama maam Amari Mbéri Tall nee na dafa bëgg nga fal ko jëwriñ Mbul mu ne ko baax na daal di jóge ci xale yi daal di dugg ci biir kër gi bi mu duggee booba boo nekkee euh, damel fi ngay nekk day doon fa sori ci biir kër gi nga xam ne garde yu bëri ñooy nekk ci bunt yi lu mat ay juróom-ñetti buntu juróom-ñaari buntu di nga ko traversé lépp nekk ay garde nga doog a egg fi nga xamante ni foofu la dammel nekk waaye Birima Ngoné Latyr comme may sa te ku ne xam ne set ak maam ni nii mel bi mu ñëwee rek ngir gis maamam da koy yomb mu daal di jàll garde yëpp daal di ñëw ci maamam fekk maamam toog ak garmi yu bari ñu toog di waxtaan mu ne ko mam may sa tend mu ne ko faal mu ne ko dafa am sama jenn maam ñu ñëw fee fekk ñu ci penc fi doon fooye mu yónni ma ci yow mu ne ko lu mu wax mu ne ko nee na daa nga fal ko jëwriñ bul mu ne ko kan la war a doon waay gar mi toogoon foofu xalaat xalaat am ko ci nekk am ku ko ne kooku de xam naa ne ëmëri mberitaan lay war a doon ndax birima Fatma ci bu magam falu na mu dagg ko lu yàgg te falu ko kon xam naa ne su fekkente ne nii mu ngi laajaat ak pal am na ku ñëw di laajaat ak pal rawatina jiwriñ bul kooku ëmëri mbéritaan rek la war may sa tent daal ne birima ngoone laatir demal nga fay loolu du waxee xale birima ndeysaan ci jom ji ak ci ngarmi gi ak ci dërëti garmi gi daw ci yaramam mu am lu mu yëg euh, daal di ñëw bu ñëwee ne ko maam Amari Mbéri mu ne ko Fall mu ne ko sama maam dafa jàpp xam na ne doo ko mën a gis ndax garmi yi euh, ci bi ngay nekk xale ci ngay amee jom ci ngay amee fit ci ngay amee njàmbaar ci ngay amee yar surtout yar bi nekk ci waaye ci ngay amee xel mu rafet mu ne ko maam Omar mu ne ko Fall ci yar bi ak xel mu rafet mi mu ne ko sama maam dafa jàpp xam naa doo ko mën a gis waaye ñaanal ma rek bis bu ma faloo dinaa la fal euh, maam Omar Mbéri ne ko yow de doom boo diwut di nga falu yàlla na nga nekk damel fii ci Kajoor daal di waraat ki ànd ak garmi yam àndaloon jamono di dox yàlla mi dërëtawut ba ki nga xamante ni moom moo di Euh, damel may setendi joor bi mu saayee léegi ñu ne faw kon léegi il faut nu falaat kenn booba nag ñoom euh, jam euh, garmi yu ndaw yooyu ñoom ñëpp màgg nañ kenn ku ci nekk war a falu waaye booba néegu géej moo aye te ku bokk ci néegu gii rek lañuy ñuy fal te booba Birima Ngoone Latiir moo bokk ci néegu géej moo judd ci néeg géej ndax Ngoone ab sa mooy ndeyam ñu ne kon Euh, Birima Ngoni Latir rek lan mën a fal ñu ne Birima Ngoni Latir mu ne fal ñu ne ko kon yow la ñuy fal mu ne waaye pal gi de dina am waxtaan ñu ne ko lu tax mu ne ki nga xamante ni mooy sàmmam Omari mberi Tall bi may nekk xale dama ko waxoon ne ko bis moo faloo dama lay fay fal nga nekk jiwriñ bul maamam ñu ne ko Amary Mbéry Tall de mënoo koo fal ndax bi nga xamee ne Birima Fatma ci bu magam nekk na fi di damel daggu na ko te falu ko bi nga xamante ne nii sama may sa tend falu na falu ko kon la taxoon faluñu ko nag ñoom ñoo ko xam kon yow doo ko fal mu ne leen damay garmi te samay wax du tuxu te waxoon naa ko ba muy nekk xale donte gone laa woon waaye ñaar rek ayam damay fal sama maam Umri Mbéri muy jëwriñ mbul ndax gar mi ay waxam du tuxu wala ngeen bañ ma fal xoolal ngor googu te booba euh, doon damel mu ngi tolloog nekk président de la république waaye bañ ay waxam tuxu moo tax mu yemale titre président de la république boobu di damel fal maamam Umri Mbéri booba comme yeneen garmi yaa ngi ki nga xamante ni mooy Demba Waar xawoon ci am mag ne leen xam naa Birima Ngone Latir garmi la te ay waxam du tuxu euh, boo ko falee dina fal maamam Umari Mbéri Tall bu ko mënta fal leer na ma ne du nangu pal gi ñu waxtaan waxtaan nekkoon kon nan ko fal bi ñu ko falee mu ne ana sama maam Umari Ngone Tall Amary Mbéri Tall ndax mi ngi dund ñu ne ko mi ngi dund mu ne wóol leen ma ko ñu wool ko maam Amary Mbéri Tall mu ñëw mu ne ko maam Amary Mbéri Tall mu ne ko faal mu ne ko bi may gune dama ne la woon bis bu ma faloo dinaa la fal mu ne ko waaw waaw fal loolu de nga ma waxoon mu ne ko bis ni ko tey fal naa la ngay jëwriñ bul mu daal di koy pal fal nguur ga nekk fa lépp nekk fa ci jamono yooyu 59 tubaab yi commencé dugg si ci réew mi ñoom feder ñoom Pinet pinet ñoom ñëpp tàmbali fee nekk réew mi commencé euh, dox ngar mi gi di dox tubaab yi tamit dugg si di doxal seeni mbir ñu gis ne Birima Ngone Latir falu na am na doole ñu ngi fii tubaab yi tamit bu ñu gisee buur bu am doole buur boo xam ne ay mbiram a ngi dox dañ koy bëgg a doole ñu xool xool fu ñu ko mën a jaar amuñu ko ñu tàmbalee jaar ko ci maamam jooju nga xamante ni moo di Amari Mbéri Tall commencé ko may ay fas yi fasina rigor commencé ko may ay barigoy sàngara lu ne ñu commencé ko koo defar rek ngir mën a jaar ci moom ngir jot ci ki nga xam ne mooy ma Ngoone Latiir waaye li wolof di léeb rek naan nit bu fekkee mi ngi lay wut te mun laa jot day seet ci ki la gën a jege mu jaar ca ci Amari bi ko ma Ngoone Latir yëgee nag bañ mbir ma ëpp doole mu woole ko mu ñëw mu ne ko maam Amari Mbéri mu ne ko ta mu ne ko Fall mu ne ko dégg naa de yaa ngi tàmbalee am aw eh, ay joote maanaam ay relation ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di tubaab yi mu ne ko waaw mu ne ko bi ma lay fal de ne woon nan ma bu ma la fal waaye sama ngor ak sama ngar mi may ma woon ma bañ laa fal ndax waxoon naa la ko waaye bu ma sañoon doo am ak ñoom jotee mu ne ko pal gi dama ko yeyoo ndax mate naa ko ci wàll wu ne kon waroon naa nekk war naa nekk jëwriñ bul mu ne ko kon baax na mu ne ko kon baax na ñoo amaat ba jëmmi jamono mu woolu maamam Amari Mbertal mu ñëw ñu tàmbalee yoote booba garnu yi lépp lu ma saan bëgg a wax ci yoote ci lañ ko daan wax maanaam ni ñuy xëy di defee journal bu ñu des dañuy ci pénc ma ko defee li nga xamante ni moom moo di ay euh, information yi war a génn yëpp ci pinc mi foofu la daan génne ci biir yoote bi bi ñuy yootee ndeysaan birima dox daat ne ko toj belli bi mu ne toj belli mamam Amari Mbérital dégg li mu wax daal di dox moom it daal ne ko racinew doom suma maanaam Amari ma mi ngi koy bëgg a xamal ne ko dinaa toj belli ndax li nga nekkee nii tegu ko ci yoon te jaaduwut kon dinaa toj bii li loolu la ko bëgg a wax maamam amari mbéri taalitaan nem na ko raasi new doom suma doom suma ab dëkk la boo xamante ni daa bëri ay new moom it bu bëgg koo wax ne ko bis boo tojee bii li li ngay doon doon dammel dootoo nekkati dammel ba di nga raasi new ñu waxante kàddu yooyu kenn ku ci nekk dégg li sa moroom wax maamam amari mbéri dem Birima Ngoone Laatiir daal di yónnee njukki nga xam ne néegub xaaxa la fa la maamam Amari Mbéri dëkk mu daal di koy toj lakk dëkk ba euh, jàpp ñam fay jàpp andi maamam Amari Mbéri nag loolu naqare ko trop mu dem bawal seeti ki nga xam ne mooy Tiyaasin Ngoone Déggan Joor Mbaaco Kumba Joojo Koddu Leel mi nga xamante ni moo nekkoon teeñ ci jamono jooju daat ne ko dama la dama dama bëgg nga ñëw ma jox la kajoor nga nekk dammel ca kajoor di teen ca bool Birima Ngoone Laatiir moo fa nekk di sama sët dama bëgg ñu ànd dal ci kawam xeex ak moom dàq ko nga nekk teen ci bool di dammel ca kajoor ci jamono yooyu ñu waxtaan ci loolu la cay xew xew ca ñu waxtaan ba ki nga xamante ni moom moo di maamam Amari Mbéri Tall ànd ak Ciyaasim Ngoone Déggan Joor Mbàcco Kumba Jojo Koddu Leel ñëw xare xare bu rëy boobu nga xamante ni bokk na ci xare yi gën rëy ñu xare xare daje mbul xare xare mbul boobu nga xamante ni xare bu rëy la woon jom ju yaatu feeñoon ca ngar gu yaatu feeñoon ca euh, te li ko waraloon rek mooy sàmm kaddu goo xamante ni Birima Ngóone Latir sàmmoon na ko kàddu nga xam ne kaddu kaddoom googu mu sàmmoon moom moo sabab sax xare boobu ndax lan ndax fal na mamam Amari Bertal mamam Amari Bertal na mu waroon a doxale doxalewu ko ba dem ànd ak ki nga xamante ni mooy Thiassine Ngóone Dégane Joor Mbacco ba ñu ànd euh, dal ci kawam ñu xale xare mbul boobu di xare bu rëy loolu yëpp li ko waraloon mooy sàmm kàddu kon yaakaar naa ne ñooñu bu ñu doonee suñuy maam sàmm seen kàddu jaral leen ba nu xare kon ñun sàmm suñu kàddu waay waaye bu ñu toogee ci suñu kër toog ci suñuy oto toog ci suñuy di wax war na nañoo mën a jaral nag ñu sàmm suñuy kàddu ndéem ñu di suñuy maam ñu seen ndono sàmm seen kàddu jaral na leen ay xaru ay xare xadi koola leen yaakaar naa ne Birima Ngone Latyr a ngoog ba mënuñu ci am beneen beneen lecture maanaam. Mhm. Euh, ni euh, waxu euh, waxu mag peut-être kenn waru koo teggi c'est-à-dire waxoon nañ ko ni bu ko fal. Mhm. fal na ko ba tey moo ko jural peut c'est vrai sàmm kàddu baax na mhm. waaw loolu di ci jànge loolu ci jànge waxi mag. du fanaan dañ àll rek waaye du ca fanaan. waaye ñaare ñaar yooyu dañuy daje. ndeysaan xam nga ngor. dafa ëpp doole lu bari. ngor dafa ëpp doole lu bari. ngor boo seetloo diine lislaam sax ngor a fi jiitu moo tax bu diine lislaam ñëwee ànd ak ngor day dal di dëgër lool seen ngor mayoon leen bu nu waxee ba pare euh, donte waxi mag ñëw na donte leneen ñëw na dootuñu ci man a dellu ginnaaw ba mu jaral leen loolu yëpp rek loolu yëpp li ko waraloon rek mooy ngor bu yaatu nag ngor bu dëgër te ñoo di suñuy maam kon ñun war nañoo gore. ak leneen lu ma comprendre aussi eh, dama la doon dégg nga ne néegu géej dama la doon bañ a eh, dagg. mooy mooy lan. waa xam nga euh, ñoom ci seen jamono euh, dañoo amoon organisation bu rafet. néeg moo nekkoon meen maanaam néegu géej mooy ñi nga xamante ni ñi sant Fall ci Kajoor bari nañu bari na ñoo xamante ni ci néegu géej dañ bokkoon. comme Lat Joor Ngoone Latir nga xam ne yaayam mi nga xamante ne moom moo di Ngoone Latir Absa moom moo jur tamit Birima Ngoone Latir ñoom ci néegu géej lañ bokkoon amoon na géej amoon na wégéej amoon na sombañ bëri na ay néeg yoo xamante ni dañ fa nekkoon lu néegu géej képp ku bokk ci néegu géej yaay falu dammel moo taxoon euh, Birima Ngoone Latir war falu ay néeg la woon ay meen géñoo dafa am meen am moo taxoon ñoom danoo fonkoon loolu moo taxoon ñu ne ku bokk ci néegu géej rek yaay falu. dem nañ organisation. li mhm. euh, euh, ma li ma amati koy faral di defee ak ministre mhm. bi mais man li ma ci euh, dama ko doon dégg ci woyu Youssou Ndour Birima mhm. nga tudd ko léegi kon Youssou Ndour Birima mu doon woy mooy mooy Birima bi Birima Latir bi waaw Birima Latir. Mhm. ndax Birima Latir ngoone Latir ab saa jur. Mhm. ngoone Latir ab sa damel may sa tend joor. mu yooyu Birima. Euh, euh, yaa moom yaa moom way <laughs> waaw ndeysaan ah. waaw moo tax mu way mu way ko tagg ko ba ci maamam jooju di damel may sa tendu jor waaw ndeysaan euh, dama def corrélation bi uh-huh. ma xalaat ne may sa teen joote mooy maamam direct ndax moo jur ndeyam ngoone latir ab sa dafa am solo mhm. way la man dama siy jàng ngor mhm. jom mhm. fulla waaye it ak euh, li ñu naan démocratie ndeysaan euh, ngor gi moo tax bi mu waxee kàddoom def na lépp ngir kàddu bi bañ a dey waaye it fulla gi. Mhm. mooy kim fal. Mhm. bi mu naree jaar yoon taxaw na def li war a def. jeex na tàkk. <laughs> Euh, bi ñuy euh, bi ñu koy fal moom. Mhm. ak même maamam biñ ko biñ ko maam yi yónnee. ngir ñu fal ko moom it. di nga nemmeeku foofu li ñu naan parce que mooy buur. waaye jugul rek fal. waxtaan na ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, garmi yi. ñoom ñooy garmi yi ndeysaan <laughs> donc. kon te jamono jooju bu ñu seetloo jamono jooju la tubaab bi ñëw. Mm. démocratie dañuy indil. ndeysaan donc nekk fekk na loo xamante ne maam yi sampoon nañ ko fii. moo loo daan wax daan problème yooyu donc day daa nekk yu bëri yoo xam ne dama ko jàngaat si expliqué lii rek mm-hmm. donc mu nekk loo xamante ne mi ngi fi woon mm-hmm. kon seen ñëw foofu seen ñëw fii daal mm-hmm. yàq na lu war rek yàq na lu <laughs> merci beaucoup Assane très bien yow fi nga gisee sax moo gën a pertinent parce que gis nga Assane nekkul woon n'importe kii la ñuy fal nekkul woon n'importe qui la ñuy fal daan nga doon sax garmi judd ci néeg bi nga war a judd te doon la fal ba loolu la daan fal dan la daan xool ci judd xool la ci géño xool la ci melo xool la ci jikko xool la ci ngor xool la ci lépp ba nga mat ko ñu doog laa fal loolu nag moom la ñu tubaab bi xañ ñun euh, mës na dégg mës na dégg jenn waay wax ko mu ne ñun ñun folli lan man waaye mënunoo fal ñun sax ñun war nañoo bala nuy falati nu xool ko xool xool bu baax doog a fal te ku nu fal tamit nga roy ci sunu maam yi bala ngay wax nga seet ko seetal wax mu am moom suñu borom rekk a ko jagoo waaye loo wax rek na fekk mu doon loo nar boo demee ba tegg ko nga xam ne ay la yéwén moo am moo tax fal du ay caaxaan bala noo fal kenn ñoom dañ ko daan xool yóbbu ko ca béréb ban ko war a faloo nat ko ci condition yëpp ba pare doo ko fal moo tax buñ ko masaana fal rek euh, ñaareel liñ ci am ci lu leen naqari daawul bari am na solo li ñu li ñu fii wax que école yi dañoo war di jàng suñu histoire yi maam yi bari na lool waaye mhm. comme que internet léegi moom la ñëpp di mhm. utiliser. ce mhm. serait également bien que presse en ligne bi di relater histoire yi bu ko defee ndaw yi di gën a xam ñun ñooy kan. waaw am na solo moom vraiment lu mel nii moom jar na waxuma la ndaw ñi sax waaye mag ñi uh-huh. war nañ mat na leen koy fàttali uh-huh. eh, surtout vertu yi nga xamante ne moom la sëñ bi relevé léegi man seetlu naa si tamit si si wàllu yar ay teggin uh-huh. maanaam bi ko bàyyam waxee eh, nekk loolu waxi mag la moom ni mu ñëwee wax na ko ci ay teggin yoo xamante ne que mm-hmm. xëy na bu doon jamono ji ndaw ñi mm-hmm. Eh, liñ leen wax rek la ñuy jottali waaw je pense que jàngat yi bari na loolu Mbaye Babacar toujours égal à lui-même euh, non dafa euh, xare boobu ak euh, Birima Ngone Latir ak digganteem ak maamam ak ya ca xew yëpp dafa tellement riche ba. voilà ci enseignement yi ñu waaw enseignement yi ci mën gis nga Birima Ngone Latir comme ni ko sama xarit bi waxee. bi ko maamam ne demal fooy loolu di wax gone bi ñëwee. dane maamam sama maam dafa xat xam naa doo ko mën a gis tey xoolal yooyu teggin donte mu ngi nekk xale xoolal boobu yar mm-hmm. xoolal njàmbaar googu mm-hmm. euh, loolu dafa am solo yooyu yëpp euh, mag ñi dañ ci daan teel yar seen njaboot ñoom dañ la daan xool rek nga xam li wax wala ñu def la benn geste rek nga xam li ñu wax lépp mm-hmm. bu ko defee yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante nii suñ ko dee fàttali ak di ko nettali euh, dinañ ci mën a jànge lu bari ñun ñi di ay ndaw tubarkalla dëgg la di la remercier bu baax a baax yàkkamtiwaat encore jeudi jot boo ko defee nga ñëw ci suñu beneen maam en attendant ma lay bàyyi nga tàggoog moo ko téléspectateurs yi ndeysaan jërëjëf am na solo euh, Khady maa ngi lay euh, bëggee bu baax di bëggee euh, mbokk téléspectateurs yi di nuyu vraiment xarit yi ak soppe yi nga xamante ni macha allah ñu ngi seetaan petit déj te rubrique bi ñu ngi koy topp di ñu bëgge mhm. di ñu encouragé di ñu félicité maa ngi nuyu bu baax Omar Touré ak Mamadou Touré ak sama xarit Serigne Abdou Diaw ak Mortala Gueye di nuyu sama xarit Mbaye loo docteur mbay loo nekk fële ci Kaolack di nuyu bu baax a baax a baax ki nga xamante ni moom moo di oustaz euh, Souleymane euh, Samb di nuyu xarit yi ak soppe yëpp waa Médina waa Guédiawaye waa Pikine waa Parcelles Xombal jaar mbar jaag daali njéemé nduuf ndengleer ba njën si rax ngi bëgg ñëpp leen ziar